ba man ba man a un problème nit ñi dañ may wax ay yow da nga respecté sa soxna wala yow sa soxna moo la bàyyi ci li nga nekkee wala yow man dama amul droit am gel wala dama amul droit ma bëgg jigéen wala man awma droit gis xale bu ma neex ma vidéo ko wala lan moo tax man nit ñi yaakaar ne man sa esclave la wala yow yaa ma moom wala c'est quoi le problème mun a wax <laughs> waaw waaw waaw elle m'a bien répondu elle m'a gars après naa leen woowaat dinaa leen woo